xam na ne dañoo déshonoré li nga xam ne moom mooy justice dem nañ ba à un moment donné amul benn citoyen sénégalais boo xam ne amati nga woon confiance sur la justice te ñoom ñoom ñoo ko yóbbu justice te du ñëpp de mais groupe la groupe boobu nag tey li gën a yell mooy gannaaw bi leen isole nga xam ne bokkatuñu ci li nga xam ne moom mooy ci carte ci ci ci ci cadrage bi te ay dossiers ñi ngi ñëw de yooyu ñoom ñi nga xam ne par exemple ñi ngi ci woon dossiers yooyu warul tegu seen loxo donc war leen écarter yóbbu leen fenn fi poursuivi di nag soog a ñëw radiation yi ñëw ndax ñii amatuñu seen place ci wàllum justice te loolu mooy dëgg. d'accord alors euh, jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba euh, euh, su ma dee ni mu waxee donc qui veut dire mooy am na yeneen yoo xamante ne mooy étape yu war ñëw topp ci li xew. mais en attendant déjà affectation yi ou changement yi ou chamboulement laa ko mën a tuddee ndaxam da nga jàpp yow sa xalaat en tant que communicant itam nekk na lu mën a affecté. peut-être perception wu indépendance justice fii ci réew bu Sénégal am déet. jërëjëf Djibi euh, dafa am kilifa gu baax bu ñuy wax Serigne Fallou. mu wax. dafa wax ni kilifa gu nekk war naa jomm sa njaboot bu ñu amee soxla seen xel jël la. maanaam. kilifa gu nekk. Mhm. war ngaa jomm sa njaboot bu ñu amee soxla seen xel jël la. d'accord de deux mille vingt et à deux mille vingt trois ban sénégalais nga gisoon moo am yaakaar ci justice réew mi. ah wax ma néewoon na. bëriwul hmm? de lool. ban sénégalais de deux mille vingt et la ba deux mille vingt trois ban sénégalais nga gisoon mbir am benn opposant ñu jàpp ko wala ñu jiiñ ko dara seen xel dem ci ni mën na am justice setal ko. bëriwul de. Hmm? bëriwul alors xam nga sor robe magistrat mel ni acteur politique dafa am. yu doy waar yu xewoon ci réew mi dafa am plus de quatre-vingts personnes yu ñàkk seen bakkan te buñ la waxee lu ñu ñàkk seen bakkan buñ la waxee ci li mu jógee nga xam ni ñii dañ doon fowee bakkanu askan wi jëriñ Ndiassane nan nga mën a comprendre nit ki ñu jàpp la yóbbu la rëbës parce que sa téléphone photo Ousmane Sonko nga ci def comme profil. amoon na fi de. nan nga mën a comprendre ñu jàpp nit ki parce que dafa takku bracelet Pastef man à l'époque dafa am reportage bu ma doon def boobu yoruma sama carte presse à Thiès fekk am benn affaire bu fa xew ma jël ko ñu ja ñu jàpp ma yóbbu ma en attendant bi sama carte presse di ñëw liñ ma njëkk a laaj mooy ba xam Pastef nga bokk. Hmm. ba xam Pastef nga bokk. loolu mooy bu dee Pastef nga bokk moom amul sax enquête da ngay dañ lay yóbbu directement. mais bokk Pastef crime la le président Macky Sall bëgg a def forcé mandat wala bëgg a candidature ki muy jël comme candidat jàll mu xam ni lenn rek moom mu mën a empêcher loolu ma am ko mooy Pastef bokk nga soisir say say say say magistrat pour ñu defal la un sale boulot xam nga kan la ñu waroon njëkk a yóbbu Tambacounda. kan. procureur Amady Diouf. lu tax. parce que waa waa waa waa yeew yi defuñu fi benn meeting. Hmm. place de du mu tuddati sax de la nation je pense. c'est ça. bu am réussite. mu xëy woote conférence de presse. ñu ne ko lu xew mu ni dafa am ay rebelles yu jógee Casamance yu ne woon ci meeting bi. ci la ñu jàppee Kabiline Diatta mhm. François Mancabou xaw ma dafa naa noonu la mhm. nga xam ni deewam dafa marqué woon ñu baree baree baree baree bari ndax ni mu demee ni mu demee treize minutes mu génn defaat conférence de presse wax lu ko neex dem na sax ba ni ci prison bi am na benn vidéo bu ko wanee muy mbëkk xaw ma la nag lan kooku moom waroon na njëkk Tambacounda maa xam Diallo mais sëriñ bi l'affaire Sweet Beauté ñëpp xam nañ ne war woon a génn gendarmerie parce que certificat médical médical bi rek seetal na Ousmane Sonko waaye comme dafa am ay ndigal yoo war a jëfee maanaam kii daal moom nañu fexe faagaagal ko te moo tax gis nga yàlla du nit de. xulillahuma malikal mulki tuutil mulka man tasha wa tanziul mulka mi man tasha wa tuizzu man tasha wa tujillu man tasha bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir gis nga dinaa la wax benn mbir xoolal firawna gis nga firawna musul bëgg borom xam-xam jël contact ak peuple am jibi firawna musul bëgg boroom xam-xam jël ak contact ak peuple xam nga lu taxoon lu tax jëriñ jaase mhm. mooy dafa xam ni borom xam-xam bu jëlee contact ak peuple daf leen di yee te su leen yeewee peuple su yeewoo day xam li mu war a nangu ak li mu warul warul nangu dootu leen mën a utiliser. firaw na benn bopp borom xam-xam bu ñëw xam nga nu muy def day wax ni indil leen ma ko ci palais bi mais bu mu am contact ak peuple bi xam nga bu ko indee ci palais bi def danaa ko jàngalal ma Moussa mii yàllaay karim te xamal ni Moussa mi borom xam-xam yi di jàngal moom nguuram gii nga xam ni moo ko teree nelaw ba mu ni liir bu juddi di góor nañ ko rey. Moussa mi muy wax na ko borom xam-xam yi jàngal kooku mooy moo ko fi jëlee ci nguuram gi ñoomul président boo xam ni am empêché Pastef jël accéder ci nguur gi jaral na ko lu nekk maa xam Diallo génn dossier bi gendarmerie indi ko cabinet ñu yóbbu ko procès xam nga luñ ci bind ñu bind ci dañuy topp Ousmane Sonko pour lan pour pour viol bi procès bi jeexee lan lañ toppee Ousmane Sonko corruption. mineur moom lañu moom lañu njëkk a désavoué. moom ci boppam Mamadou Seck moom jàpp na ne mandat dépôt daal mu ngi mel ni daal moom jógee sa kër ñoon la ci boutique bi. donc ku dugg cabinet moom da ngay da leer ni xamal ni yow yaa rëbës nga jëm plus de mille huit cent personnes ñii ay takk njël Ousmane Sonko ñu yóbbu la prison. sans problème xale yu bari ñàkk ci seen bakkan. Mhm. ñu teg ko ci seen teeyu bakkan ak lan jëfee ndigalu koo xam ne kooku moomul réew mi. li Serigne Touba waxoon Samba Lawbe jàppal xamal ni nguur gii nga yor Samba Lawbe mu ne ko waaw mu ne ko dafa jóge ci ñoo xam ni ñoo la fi jiitu génn àdduna nga donn leen ci nguur googu te xamal ni bisa ngi ñëw dinga dee keneen donn la. wóor na. te wóor na maintenant ñoom ñu def lu leen neex mhm. mais sëriñ bi nag. mbir yi warul yombee noonu ci ñoom man dama jàpp ni sax da di peut-être ji Tamba moo gën a jege mooy gën a jege rek moo tax hmm. waaye bu fekkoon am na fu gën a sori Tamba fa lañ leen war a yóbbu hmm. waaw si dañoo gàkkal deru justice dem ba benn sénégalais amatul yaakaar ci justice bi Ousmane Sonko ñaata ñaata plainte la def plus de huit plaintes ba moo ci am suite hmm. mais sëriñ bi nag mënatuñoo toll ci réew moo xam nag jibi da ngay toog def lu la neex après comme si de rien n'était affaire kon continuer mm-hmm. d'accord mais bu bu gis nga président bu jël woon dogal bi sénégalais yi dinañu dinañ am leen naqari. dinañ am leen naqari parce que li ñu def dafa ñaaw il faut que ñu fay. Mm-hmm. kon su ma déggee Pape euh, Cheikh bi jëwriñ Ndiassé. Mm-hmm. kon c'est justifié changement yi. waaw c'est justifié mais lenn rek moo ci am ci ci ci décision bi. mooy lan mu xaw complexe. mooy fii Mbow Dieng ak. Euh, suñu Bamba ak Thioub parce que Tamba bi dafa mel ni dañuy teg Tamba comme prison ci Sénégal ñu mel ni waa ji nekkoon euh, bitim réew gént ñu koy delloo si Sénégal mu jooy jooy metti ba yeewu ci gént bi daane laay gént ñu lay delloo sa dëkk ngay jooy jooy metti yi moom xanaa dëkk ba jàmm xewu fa <laughs> léegi Tamba bi loolu moom moo si euh, kii bi parce que waa Tamba na nañu am juge yu baax ak tribunal yu baax. Hmm?